bata bi jànnato wóor na sëriñ baara keroog ba seex bàmba ne tey ajjana ku ca dem du ñàkk tey moo ca dem mooy ndey baara mbaam soxnaam bu soo na dem mu ni ko toogal ma dem te nga wuuf seex fallu baara bàmba yi koo foofa nag du toog gi reer mara la daal di wàccum liggéey na sëriñ baara keroog la bur yàlla naa rilwaanu nag ma ubbil ajana tey ma teral waajuru sëriñ baara rilwaan ubbi buntu ajanu bee kawafal boobee ba tey tëjuwul ngir xeetu Cheikh baara jigéeni ajana waajak seen takaayu wurus di teeru soxna amintulum sëriñ baara maam soxna bu so des fii di seddale ngor diggante seex mustafa ak falloog sëriñ baara loola waral loola waral ba sëriñ tuuba meles seex mustafa wu sëriñ falloog sëriñ baara seex baara nag ba mu xamee ni doon xalifa la daal di wàccub liggéey jaaxal sëriñ baara Cheikh Baara nag bam xamee ni du xalifa la dàbbi jannatoo jaaxaan fa ma mbaara ñeent fukki at la fi am ak yu tafal soga dem jooy naa borom kàddu gi woy man sëriñ baara ñeent fukki at la fi am ak yu tafal soga dem jooy naa borom kàddu gi way man sëriñ baara def na fi lim war a am na fi lim jur fi baax ñi mu jur waaj na sëriñ baara sagal na maamam sëriñ moranta mbàkke ma woon faneegi mbàkke kajoor jaajëf sëriñ baara sagal na maamam sa mbàkke ma woon fa léegi mbàkke kajoor jaajëf sëriñ baara gis naa fa mbàkke kajoor xéewal yi jama badan yoo xam ni dootu fa jóg lépp sëriñ baara loola waralaat mu jot doomam yu baax ya mu am ànd ak ya mu am màggal sëriñ baara